mais Cheikh yow defar daal donn la si yow walla loo jàng la wala la. waaw defar daal man samay famille yaay yëpp dañuy defar daal jàng naa ko nag sama mag xaarim Thiam jàngal na ma métier mais daal jigéen laa fa jàngoon mais lii nii nag mooy daal ferme yi may defar don la ci man lu ñëw ci man la. waaw parce que li tax mu ma ni la lu ñëw ci man la dama amoon sama benn nijaay bu naan jogoon si la. xam naa ni am naa ñu mag ñoo xam ne xam nañ ko ndax am na kilifa yu bari yoo xam ne moo leen doon defaral dàll waaw moom 83 ans la amoon amagul amatul woon kàttan léegi mu woo ma ci place pour ma koy jàppale waaw ba nu nekkee ci place bi nag ma koy jàppale jamono jooju mu xawoon tawat mu xawoon feebar waaw ñu toog benn samedi liggéey yëpp pare yi ma koon jàppale yëpp pare ma toog yoroon xaalis waroon dem kolobaan jëndi ay bag waaw pour sol ko quoi si samedi ma toog mu ni mais lii ma nar a jëndee te maa jël rek ma defaral sama bopp daal ñu ñu jéem a imposer suñu bopp. après loolu moomu ci dugal ma dem jëndi benn der bu beige laa jëndoon defar ko daal ba ma ko defaree jour boobu ci ngoon gi ma sol ko mais damay romb damay seetlu fu ma romb ñuy xool sama tànk ma jàppoon ni sax li ma defar daa baaxul mais bu ma xëyee suba nag sam benn grand laaj ma ko ni ma sax daal yi dafa rafet foo ko jëndee mu ne ko maa koy defar mu ne ma waxoo dëgg jaay ma ko ma sax wax ko boo xam ni sax yaakaaruma ko mu jëndee ko ci saa si moom tam mu ñu ma ko jaay ma ko ma simmi ko si saa si jaay ko après si laa defaraat tamit mu nekkaat même chose ma jaayaat ko comme noonu solaat jëndaat ay carax sol après ma xam nag lii nag su ma si concentré woo war naa ci mën a yegg fu nekk ko à chaque création y a une histoire. Mhm. te moom histoire am mooy li ko motivé mooy nee na moom day defar daal donc gis na ne c'est inconcevable mu dem jënd ji ay daal yoo xam ne ne mun na ko defar mu defaral boppam ay daal. mais dàll yi nii bi nga ko defaree ba pare euh, certes am na ñu ko jënd mais si sa entourage est que amoon na ñoo xam ne ne genre xeebuñu woon sa liggéey wala gëmuñu ne mën nga def qualité boo xam ne ne moom la ñeneen ñi di def même qualité bi. waaw commencement bi na trop quoi parce que am na ñoo xam ne li may defar kiwuñu ko woon quoi mais am na ñu bari ñoo xam ne xamoon nañ ko waaw parce que tey loo gis rek loo gis looy def rek. dina am ñu bëgg am ñoo xam ne moom dañ lay décourager loo ko waaw parce que bari ñoo ñoo xam ne dañ doon wax daal yi lii duñ ko sol parce que ay Adidas ak Nike duñ fi nekk ñuy sol daal yi mais léegi ñoom dàll bu ñu sol léegi maa ko defar. Mm-hmm. Mm-hmm. ban année nga commencé defar daal. ban année waaw yàgg naa parce que depuis 2002 mais dàll yi 2013 laa ko commencé defar. ça fait sept ans kon yaa ngi defar dàll yi. ok waaw sept ans maa koy defar. bu ñu ko tàmbalee defar ba léegi am na évolution boo sentir ci sa carrière en tant que parce que après euh, y a y a l'espionnage industriel comme noonu la xaw naa laa koy tuddee. l'espionnage industriel. nii da ngay defar benn affaire boo xam ne yaa ko xalaat yaa ko fabriqué yaa ko créé mais amoo foo ko déposé am ñeneen ñu jaar ci suuf jël sa même modèle defaral ko seen bopp ah. di la concurrencé waaw loolu am na parce que am na ñoo xam ne maa ngi leen doon liggéeyal du ma leen tudd sax seen tour waaw. parce que ñoom nekk ñu woon fii France lañu nekkoon waaw ñu amoon benn marque ma leen doon defaral dàll mais bu ma ne defaralee dàll ba ñu demee ñu invité leen France 24 jour boobu plateau France vingt 24 plateau yi fa dàll yi fa nekk yëpp maa ko defar mais jour boobu sama tur feeñu ci ñoom seen tur moo ci feeñ ko yow yaa defar say dàll maa defar maa créé modèle yi defar ko. yónnee waaw yónnee leen ko mais ñoom nee nañ ñoom ñoo créé affaire yi ñoo ko defar. loolu tamit dal na ma ci tamit may wax sama mbokku cordonnier yi bu ñu gis nit ñëw rek ne leen 1000 paires wala 2000 paires mu luqi seen bët quoi. Mm-hmm. parce que nu ñu xam li ñuy liggéey même su dee da liggéey benn paire par semaine sax def ko nga gëm ko waaw parce que soo ci yàggee tamit yàlla mën na indi sutura daal affaire yi mën na yaatuwaat bu baax a baax. li nga wax nekk na lu am solo mais man li ma si xaw a jaaxal Pape Sidi mooy dañuy gis suñu mbokk artistes yi bu ñu génnee benn œuvre dañuy dem protéger ko SODAV. mais yéen artisan yi boo leen créer loo xam ne yéen na ko moom parce que da ngeen créer loo xam ne dafa particulier léegi li ngeen créer mu nekk li particulier te ngeen moom ko euh, est-ce que am nga organisme étatique boo xam ne mën ngeen dem foofu noonu protéger yéen seen création parce que ku dem ba France 24 di aakimoo liggéeyu keneen kon amul sécurité si seen i création waaw parce que boo ma jógee foofu tam daf maa jàngal lu bari loolu noonu daf maa jàngal lu bari ci sama liggéey waaw ba léegi am naa staff bu nekk sama ginnaaw mhm. léegi parce que créé nañ lu mat vingt sept paires modèle yoo xam ne génnagul kenn gisagu ko mais yooyu yëpp ñoo ngi koy créé di teg di protéger di teg. mais yooyu yëpp ngeen di protéger. waaw am na am na ku sama benn sama manager moo yor wàllum boobu. moo ko wàllum mhm. man cadre bi rek la gérer quoi. cadre defar bi. waaw cadre defar bi. mais lan ngay defaree lii loxo wala machine. lii loxo laa koy defaree lii ku ne xam na ni mbaxane bi mu doon. Cabral la waaw. Cabral nga jël nga defar ci dàll. waaw moom laa jël dagg ko. nga ni Cheikh lii loxoo ko defar. lii loxo moo ko defar. moom rek dàll bi moom machine ko defar moom. waaw boobu machine ko defar mais bii loxoo ko defar. sa Pape man sama problème xam na la Pape Sidi. eh mais dàllam bi naay sax. pourquoi on a un complexe sol dàll yi. ah on n'a pas un complexe si. mais est-ce que production bi. ni ñuy solee dal est-ce que mën na par exemple ñun Sénégal on est 16 millions d'habitants euh, su ma juumut ci chiffre bi 16 millions d'habitants yooyu yëpp benn cordonnier kese mënu leen defaral daal la. loolu dëgg te ku ci nekk ci ñunu am nga lu war a tolloog ñaar ba ñetti peer jëm kaw. <laughs> boo mel ne man am phobie wu dal mooy boo ah, maanaam astafurlah maanaam phobie wu dal am dofu dal. Uh-huh. tu as une folie de choose man par exemple damay am ay est-ce que aw ma ay téeméeri paire daal <laughs> xaw ma jëm kaw. Euh, euh, dafay dafay compliqué. waaw day euh, waaw Cheikh. liggéey bi nga liggéey de wax dëgg yàlla ak bii nasaraan bi liggéey. Mhm. am na am na am na am na am na am na am na am na am na qualité bu ñuy constater ci sa bos. Mhm. mais bon est-ce que mën nga concurrencer ñi man loolu moom ma tax a jóg parce que gëm-gëm bi ma am mooy Adidas ak Nike fu mu toll man ma dépassé ko parce que su dee modèle bi nekk na ci man. création bi nekk na ci man xëy na nag ëppal nañ ma matériel mais man dama gëm ni sax maa leen dàq liggéey. léegi booy defaree benn loxo. boo amee machine day gën a yomb. est-ce que ah, defar daal. waaw am na ay machine yu defar daal laaj ci prix bi. non ko laajte nag. Ah, mais booy liggéey kay nekk ci mbir sept ans kay da nga ciy jéem a évolution. que xam nga tey am na loo xam ne tey ñun comme machine yu ñaw yeeg yenn machine yu garaate yi yooyu ngay mën a laajte nga tee ko mais am na loo xam ne looy laajte loo xam ne dangay xam ni li sa doole xaaj xaaj xaajaat bi yeggul foofu tamit foog nga gis ñoo xam ne tey proposé nañ la pour liggéey ak yow wala ñu ñëw pour taxaw la ci yenn affaire yi. Cheikh Cheikh dama lay dog Cheikh dafa am si dëkk bi ay organisme étatique yoo xam ne ne. xam lan loolu leen fi tax a jóg. nga ñëw wan leen loo xam ne ne dina créer ay emploi wan leen loo xam ne ne dina doxal la made in Sénégal wan leen loo xam ne ne. dina tax au finish dinañ permettre. benn jeune mais Pape est-ce ñu ngi def seen liggéey normalement. non même bu ñu defulee seen liggéey normalement yow defal li nga xam ne mooy sa wareef dëkk bi am na ay organisme ah, ah, ah, yu si mel ni ay xaar xaar ma yu si mel ni mel ni AD ADMPE dama ndax bind nga comme nee nga léegi am nga staff am nga mel ne management bu nekk si ginnaaw te dafa nekk lu am solo parce que management boobu mooy tax nga compétitif management boobu noonu comme tamit mi ngi sa ginnaaw est que dem nga bind nga gars yi duñ financé na yow defal sa wareef rek boo defee sa wareef ba pare après tamit da ngeen di def li ñuy woowee euh, ay investissement à long terme par exemple créer benn boutique boo xam ne ne euh, ay yooyu ngi si fànn yooyu. waaw ñoo ngi parce que tamit xam nga tey soo gisee soo demee ba benn instant léegi ñuy gérer suñu bopp lépp lu ñu liggéey suñ ci amee bénéfice bu ñu ci am ñu jéem a xool matériel yi ñu koy jëndee di teg. parce que tamit lu ci bari tey ñun suñu autorité yi la ñu am xëy na tamit am na lu bari loo xam ne ñun. mën nañ ko bañ a xam mais autorités yu nekk suñu koñ géejawaay wala ñu nekk feneen ñooñu lañuy xam pour ñëw indi leen suñuy affaire wan leen ko ñoom ñu mën ñu war a teg ci yoon mais lu ci ëpp ay xaaral xaaral xaaral wala dinañ la jàppale wala dinañ la wan yoon boo xam ne kenn daal laa xam ni géejawaay wax dëgg yàlla moo ñuy jàppale surtout ma man moom man dafa gis sama dàll bàyyi li muy def lépp ñëw ba ci man muy laj jóob waaw maa ngi koy jaale yaayam bi wàññeeku sax mhm. maa ngi koy jaale yal na ko yàlla xaare ajana waaw mais moom moom wax dëgg yàlla Lat Diop moo ma moo bàyyi li muy def ñëw ba sama place di ma booleeg ay rakkam ak lépp ba ci siyaak siyaak bii 2020 li tax ma exposé ma moom moom fa boole waaw kooku li muy def noonu nekk na lu am solo ñu ngi koy gërëmaale parce que ay mécénat dafa nekk lu am solo. mais man dafa maa xel rek Pape Mor mais saa yu ma amee concert bu mag. waaw wala événement bu mag. dàllam lay sol damay bañ a wax mais moom. damay bañ a wax. ñu ah ni faale wu ma daal commencement <laughs> a wax ñu ni Pape Sidi. copain Cheikh mais wax dëgg yàlla. sam benn xarit daf naan ma yow Cheikh looy fay Pape yi par par mois. mën ko pourtant fayuma ko dara mu ni ma Instagram ak fépp dama koy gis mu naan Cheikh daal Cheikh daal Cheikh daal quoi di dugal say daal. mais moom tamit fu daal yi yegg. moom yàggal na ko. égérie la quoi. Mhm. wallaay égérie ci bët ki la mujj quoi ñu ma koy wax. naan ma looy looy looy defal Pape Sidi Fall. damay dem concert sol dàll yi gars naan ma waaw mais Pape Sidi sa dàll yi dafa nice ma ni pourtant géejewaay lañ ko defaree. et puis man dama ciy dolli sax lu retaan lu dama naan fii nii géejewaay fii nii lañ ko defaree. <laughs> il faut il faut appuyer l' bëgg nit bu nekkee ci ndaw bu nekkee ci yëpp. Mhm. mais beneen problème bi may constaté ñu bëri dañ naan bëgg naa sol consommer local ñoom ñoo gën a métti ni ñuy liggéeyee ñoom ñoo gën a tarle parce que benn dàll bu ci nekk dinañ ci jël au minimum benn deux heures de temps wala trois heures de temps pour defar ko mhm. ndax feemee la lépp mhm. loxoo koy defar mhm. waaye ni da gis nit ñi ñëw ne la may ma ci ma solal la ko loolu du bari na yii bari na moom bari na duñ bëgg a jënd quoi dañuy bëgg nga may leen bëgg a jënd dañuy bëgg nga nga nga may leen quoi waaw bari na ci ñoo xam ne loolu moom lañ lay wax parce que da ngay da ngay dem ci koo xam ni sax dangay xam ni kii nii wax dëgg yàlla mën na la jàppale mën na la jëndal ay machine waaw te day nekk géejawaay mais du nangu du nangu yëkkati benn trente mille sax jox la ni la pour daal dañuy bëgg nga defar leen daal jox leen ñu sol dama la koy waneel lan mooy particularité say dàll xam nga dàll dàll la mais particularité dàllu Cheikh dàll moom dàll yii muy defar lan mooy particularité lan la wuteeg yeneen daal yi lan moo tax ñu war a sol dàllu Cheikh yi bañ a sol yeneen daal waaw parce que dàllu Cheikh soo ko solee tey damay su ma defaree dàll nit mën na jënd jënd dàll 3 millions sax mais man damay leer ni su ma defaree. dàll Waly Seck moo fi sol dàll 3 millions de yaa ngi tooñ. waaw non defaral naa ko dàll voyagé na ma defaral ko dàll mu yëkkati xaalis bu bari jox ma moom moom ñëpp suñu defoon ni moom tamit affaire yi day avancé. Hmm. waaw gëree la. waaw moom moom day jënd dàll yi moom. mais dama la bëgg a dama ko jël exemple noonu rek xam ni man su ma la defaree dàll dina xool kee dàllam pour mu sol. parce que xam naa li xam naa ni ma koy defaree ak xam naa ni ma koy defaree ba nga xam ni tey su nekkee ci su su nekkee ci biir nit ñëpp dinañ bàyyi xel dàll bi parce que dàll dafa war a am seen. dafa war a am seen. waaw tamit war am na dàll yu njaxaseele moom. Mhm. ma xool ko. mooy njaxas yi moom da nga koy sol des fois gars yi naan waa mais bàyyi sa dàll yi moom sa dàll yi moom sa may dosé nag ma naan leen am jël leen numéro waa ji moo koy defar moom dina baax si mbokk baafaale bu ñu dem màggali non mais bu dul loolu sax mais sénégalais yi nekk bitim réew ñaari ñoom dañuy bëgg di sol dàll yi mhm. parce que dafay am benn reflet identité imaginel man dama doon jël par exemple lu war a tolloog euh, cent mille francs di ko def ci benn Jordan mhm. wala ma koy def ci benn Air Nike Air mhm. euh, mais bu ma xamee ne Cheikh Dall daf may jaay même prix wu dàll parce que ñun li ñu sol doyee ci daal moom mooy na génne suñu sañsee nañu protéger ci naaj bu tàng bi suñu tànk na wodd wodd wu rafet et puis tout ça ces chaussures là le regroupent très bien euh, te ci ay prix yu moins cher lay doon en plus dañuy jàppale suñu ay ndaw réew yi nga xam ne ñu ngi yëngu di ci liggéey parce que par exemple li ñu la jox nii bu ñu la ko doon jaay ci temps ci télévision war na mën a tollook ay millions yu dul jeex mais bu ñu la ko mënee may c'est parce que dañu bëgg seen liggéey bi ngeen di def mu am mm. euh, mu am mu am nit ñi jàppale leen ci loolu mm. donc Pape Omar encore une fois merci beaucoup mm-hmm. d'avoir porté votre choix sur ce jeune mm-hmm. qui est en train d'entreprendre il y des milliers de jeunes comme ça au Sénégal bu ñu leen jàppalee wane lu